Moussa Ngom laa tudd chef de village de Touba Ngomène waaw ba léegi man bañ defee projet ni projet bi ngeen def yëpp bii moom ci gën a euh, soxal parce que garab moom au moins mu téye bu mu téye lépp mu téye au moins cinquante pour cent yi ñu mën parce que ñun waa Dangote xam def te gis nañu li def wax dëgg yàlla nañ ci ñoom loolu moom parce que Dangote dañu ubbi seen bunt yëpp sa bo feugé ñu ubil la lool moom xam nañ ko wax yàlla te ñu ngi jël suñu suñu xalé ak suñu rak ak suñu euh, jarba di leen employé fi lool gis nañ ko. te xam nga ndari bu ne day and ak euh, inconvénient inconvénient moy manam li manam poussière beeg euh, yoy dal moy problème bi quoi way nak ñi ci ñi ci def seen kam kan di ko jéem a saafara wax yalla kontaan ak ñom bax wax yalla ki leen di gërëm yeen ñëpp ci seen téway di gërëm suñu mbokk presse bi di gërëm suñu mbokk ngomeen di gërëm suñu collègue yi di gërëm madame Mbaye nga xamante ni moom moo nekk si bopp semaine bii ñu tuddee semaine développement durable nga xam direction générale euh, wax dëgg yàlla accompagne nañ accompagner ko pour que ñu def ay action sociale waaye tamit ñu wone durabilité ñun si nunu ko gisee li ñu fi dajale tey nag mooy campagne de boisement si muraille verte de Ngomène nga xam ne mur bu gudd la boo xam ne dañu fi commencé woon projet sax jëmbat fi ay garab tey moo ñu fi dajale ñu defaat beneen jëmbat distribuer ay lots de matériel de lutte contre la Covid-19 notamment des produits antiseptiques des masques donc voilà et des t Puis bi daal njëriñam mooy environnement su xalaat dëkkin su xalaat tamit gàncax waaye tamit si sukkali boobu tamit garab yooyu ñu tànn ñoom dañoo euh, dañu leen xàmmee si baare poussière waaw su ko defee léegi nag bu amee benn poussière boo xam ne dafay dem si booru Ngomen garab yooyu danañ jàppale pour wàññi poussière boobu noonu taxawu bi nag moom dañu koy def boole si askan wi yëpp ndax recruter nañ si ay nit ñoo xamante ni ñoom ñooy topp di surveiller waaye tamit danañ indi suñu matériel pour di arrosé garab yi di topp garab yi ba ñu màgg.